Euh, maam ñi ngi ñëw fii euh, di la sant di la gërëm ndax dalal gi ñu dalal fii euh, ñun nag ay ndaw lañ di jiite kuréel bi nga xam ne moo di RTS ci télé bi fas yéene lépp loo xam ne sa yitte la ñu xar suñ tànk tubéy ba def ko ni nga ko bëggee ak ñi nga ko sant comme ñi ngi dëg dëg dëgmal li nga xam ne moo di euh, bés bu sell woowu di màggalu Tuuba ñu ci seq waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom nga ko dénk euh, wax nañ ci wax nañ ñu ñoom niñ ko bëggee te incha allah ni nga ko bëggee noonu lañ ko fa yéene doxale euh, lépp loola ñu ci sant ak tamit lépp loolu bëgg ñu def ko RTS dina ko doxalee ni ngeen ko bëggee waaw lii nag nekk tamit te mébét mu am solo lool mooy wàllu université bi waaw gis na fi mu nekk nii bëgg-bëgg bi ngi ci am ak tamit coono biñ ci daj pour université bi mën a am ay ndaw di fa jàng loolu lépp luñ ci mën incha allah dañ ci xar suñ tànk tubay ngir ning ko bëggee yow ak ni ko santaane ñu fas yéene ko doxalee noonu incha allah bëgg soxla tamit sàkku sa ñaan ndaxte réew mi daanaka doo fi ñaar kenn nga fi ndax fi mu nekk nii réewum senegal bu amee dal ak i jàmm. kenn mënta fàtte wala du ëmpale mbir taxawaay bu mucc ayib bi ci def ci baatin ak ci zaahir kon ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax a baax sant li nag am na tàmbali waaye amul njeexital kon maam dañuy ñëw rek yeesalaat feddali timit li nga xam ne moo ñu war sa digganteek yow nga digal ñu ñu def nga tere ñu ñu bàyyi nga digal ñu ñu def nga tere ñu ñu bàyyi li nga bëgg ñu taxaw xar ci suñu tànk tubéy ngir ni nga ko bëggee ñu defee ko ni nga ko bëggee te loolu la ñu dogu moo tax dañuy dellu siwaat di la sant di la gërëm ci dalal bi ñu dalal ñi ko dénk nag ngir ñooñu euh, ñu doxalee mbir mi tàmbali nañ waxtaan ak ñoom tàmbali ñoon liggéey ak ñoom te nit ñu ko sante incha allah dinañ ko doxalee noonu di sàkku sa ñaan bu baax a baax a baax Mbàkke di sant sa ñaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mu ne dégg na kàddu yu baax a baax mu ne rafetlu nañ ko lool mu ne dégg na ko suñu yaakaar dolli ko ni ci baax a baax dinañ leen ci gën a ñaanul baax baax. suñ borom gën leen cee gàttandoo tawféex sëriñ bi ngeen am ci ndam na ngeen ko bëggee yéen tamit jërëjëf ñang bisimilah tàll ma ñaan la. amiin euh, jërëjëf asalaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu euh, ñoo am mbégte bu am tàmbali amatul njeexital ñëw fas yéene jokkoog suñu kilifa laay wax kilifa goo xam ne mate na ko féetañu fu baree baree bari te may wax ne man duma gan ci kër gi ndax wóllëre bi nga xam ne dox na suñu diggante mu nekk ay ati ati at nga yaatal ma ci sa bopp lool musoo jóg ci di ma xelal ci lu baax ci kaw dëgg tey nag damay wax ne duma sol mbubbu kilifa bu RTS bi nga xam ne yàlla dogal nañu samp ma ci bopp bi waaye damay ñëw ci tànku taalibe ñëw fas yéene tamit ànd ak délégation boo xam ne ñëpp ñuy kilifa ci ci béréb boobu ñu ñu teg seen loxo ñëw nañ ànd ak man fii ñuy gërëm ku tedd ki sëñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne dalal nañu ba noppi yowit nga nekk buntu Tuuba yor kàddu gi ak liñ ciy dox yëpp ñu xam ci lu baree baree bare di la ñaanal yàlla nga yàgg fi tu am ay mébét ndax ñu ngi waaj bés bu gën a rëy daanaka ci bés yi ci wàllu diine fii ci Sénégal di màggaluk Touba moom liggéey boo xam ne RTS yàgg na ko cee def waaye ren jii lu ñu sabab nësër ko bëgg ko mooy liñ den def benn yóbbu ko téeméer ci nu mu gën a yemboo nu gën a jub nu gën a tegu ci ni ko bëggee ndaxte ku tudd Tuubaa xam ne tey mooy ñaareelu ville bu gën a rëy ci Sénégal rawatina weesu na sax Sénégal fim nekk nii képp kuy jullit li nekk Touba bëgg nga koo xam ndax liñ fi liggéey ci Touba kenn du ci am loo ciy laam-laame wala nga ciy naatable dara diine kese la ba jeex tàkk moo taxit mu bari ay jullit yu baree bari ci àddina bi yu ñëw fii pour nemmeeku bés boobu le ñu warloo nag fexe ba dayo bi nga xam ne moom la Tuubaa am ci wàllu taxawaayu diine ñu koy gën di màggal ma xam li nga ciy daj saa ne kon sëriñ bi am nañu mbégte di wax rek ne ren ci màggal gi tàmbali nañ liggéey bi ak ñi ngeen xam ne ñoom nga leen wóolu jox leen ko ñuy waxtaan di xool yan pàcc la ñuy teg ngir ni ngeen ko bëggee parce que Touba dafa am nu muy doxe ñépp war cee tënku ni ngeen ko bëggee incha allah ñu defee ko noonu liñ ci bëgg nag mooy defal leen ko ba ngeen xam ne li ngeen ñu sant amul lenn luñ ci bàyyi dañ ko fus yéene ful yokk ko ci seeni ndigal nag ndax pas-pas bi nekk ci yoonu murit daanaka mën nañu wax ne doo ko gis fenn ci dogu ci paspas pas laata loolu am na amaana yëngu-yëngu yoo xam ne dina fi am lu jëm ci wàllu xeex affaire insalubrité yooyu yëpp dina fa mooy bokk na ci luy waajal màggal gi loolu it RTS dina ci xar tànk tubayam bu baax a baax a baax ngir ni ngeen ko bëggee ñu defee ko noonu leneen timit nekk bëgg-bëggu ku tedd ki sëñ Muntaxa Mbàkke suñu maam joojule mooy wàllu université bi nga xam ne samp na ko fi ngir jàngale loolit lépp loo leen ñu ci sant ñu war ko def den ko def ni ngeen ko bëggee kàdduy tënk yi daal moo di ñun ñëw nañ déglu leen ngeen wax ñu ne nii lañu bëggee defee mbir mi nii lañu sàkkoo ci yéen ngeen defee ko ko ndaxte ñun waxtaan nañ suñu biir yéen ni ngeen war a def mooy tënku ci suñuy kàddu kàddu yooyu nag dara du ci dañ ningeen ngeen ñu ko sante lañ ko fas yéenee defe ngir lépp jaar ci yoon ak it li ngeen ko bëggee seeni tere ñu jëfee ko ndax taalibe moom day wéyee ndigal lépp li nga xam ne tamit xalaat ngeen ne buñ ko yokkee ci mbir mi mu gën a ñoŋ ngir dama jàpp ne lii di màggalu Tuuba warta nekk moomeelu benn nit wala benn télévision lépp luy yombal àddina bi yépp yëpp wartee mën a daj di ko xool di ko seetaan xam ne diine lañ fi waxtaanee ñu yombal leen ko ba mu baax loolu daal la amoon ci ay kàddu yoo xam ne moom laa bëggoon a yëkkati sëñ bi di feddali kóllëre gi nga xam ne yàlla defal na ko suñu diggante sama digganteeg yow kóllëre bi nga xam ne am na ci diggante RTS ak fii di Touba di sàkku seenug ñaan ndax xam nañ seen taxawaay ci réew mi mais faral di yëkkati kàddu ne réew mi dañ koo mooñee tarixa dañ koo mooñee diine ndaxte suñu mag ñu baax liñ fi bàyyi sàmm ngeen ndono li ba dono loolu moo téye réew mi ci jàmm ndono loolu ku amuk seetlu xam na lu fiy rëj-rëj ci réew mi am na kilifa yoo xam ne bu ñu weetee teg ko ci baatin jàmm dellu siwaat ci réew mi ku nekk man a dox si yitte si jàmm ak salaam te man xam naa ban taxawaay nga ci am yow bu ma bir leer ma kon Mbàkke di la santaat di la gërëm rek jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi delloo am nuyu bu baax Pape ale Niang mi nga xam ne mooy directeur général RTS ak mboolem ñi mu àndal liggéey bi lépp te seq ko ñoom te bàyyiwu ci kenn di bég bu baax ci tànk yi nga xam ne def nga ko ñëw ci turu RTS yi nga xam ne moom nga jiite waaye sag ñëw fii moom jiitu na lii ni nga ko waxee rek kon ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ci jéego yi nga xam ne ñëw nga ko fii li nga waxe dëgg la diggante. RTS ba mu tuddugul RTS sax ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Fadel ba nëgëni seen digganteeg Touba ñëpp xam nañ ko ku fi mas a nekk di Sëriñ Touba ba ci Serigne Saliou mu mujj déclaration bu mu daan def rek bu dee téeméer mën nga ne juróom-ñeent fukki ak juróom ci RTS la ko jaarale kon kóllëre googu nag sàmm nañ ko ba nëgëni muy ci ñafe ne ñëpp xam. liggéeyu màggal gi xam dayub dëkk bi ba yàlla suñ borom def nag tey mu agsi ci say loxo ñu la ci ñaanal bu baax nag yàlla defal la ci ndimbal defal la ci taw tawféex ba fu kër ga àggoon rek nga yóbbu ko fu ko gën kawe te rafet nañ ci rafet nañ ci jox bu baax ndax yàlla def na euh, xëy nañu bare maanaam ak dégg lañ ci am lañu am ci yow waaye man xam naa la bu baax a baax te la ci ëpp solo it mooy xam naa ne nit nga koo xam ne ku gëm li ngay def nga loolu mën naa la ko seeral doo wax dara ngir bëgg ci alal doo wax dara ngir bëgg ci séntu ci leneen loolu lu ma xam sa jikku la yoo xam ne yàlla la ko bindee ba ca desit mooy sag fonk yoonu murit xam naa ko bu baax muy lu ma xam lu ma dund ci lu ma xam ci ñeneen ñoo du say kàddu yu bopp sa cofeel ci may itam xam na ko ndax maa ngi fàttaliku seere soo njëkk ma sa seere ci man booba nit dafa ñëw ci yow di da wax ne daa ah, suñ basta li ma dégg nga koy seere ci moom dama laa bëgg jël yóbbule ci moom nga xamante moom ba nga ko waxee mu ne ko defuma ko ngir jëmmam dama ko def ngir fi mu taxawee ci réew mi kenn waru ko kenn waru kenn waru ko farasilisé baat boobu di jëfandikoo ne ko defuma ko ngir bëgg lu ko neex defuma ko ngir mu xam ma defuma ko ngir jaxasoo moom dama ko def rek ngir xam fi mu taxawee ci réew mi te ma xam lu bari ci réew mi moo tax mu def ko loolu lay nag waxoo ko rek yem ci waaye da ko koo jëfe kon lépp loo xam ne nekk ci rek bu ñu soxla nga am ci ndam ndax ci eh, waxuma la cër bi ñu sedd waaye ni nga fonk yoon mbir tam leer ma nañ ndax ñu bari dañuy wax yow di moo ko nettaliwaat ci lu nga di ko wax ak man sax waaye xam naa ne cër bi nga sedd sëñ bi cër bi nga sédd dëkk bi cër bi nga sedd yoon wi ak cofeel gi nga xam ne yàlla def na ko sama digg yow loolu mbirum suñu borom la kon nag dañ lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal ci yan bii nga xam ne teg nañ ko ci sa loxo te gëm nañ ne it da nga ko yóbbu fa nga ko war a yóbbu kon ci. ñaaw njort kon yàlla def na sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne moo jiite commission bi dafa newoon ci yëfi Ndakaar la moo tax ñëwagut waaye ñi ko fi wutu di Serigne Cheikh Jili Mbàkke mi ak sëñ Abo euh, borom euh, Daaru Muxti ak sëñ Modou Mbàkke Abdou Wudo di sëtu sëtu suñu affaire ak bokk taalibe yi ñu ko àndal yëpp kon ñu ngi fi ànd ko yow mm-hmm. te am nañ ci dalu xarit ndax yàlla defee ñu indi fa wax naa ko moom mii boobu mosagul a jot téléphone laa ko ne moom de lépp lu ne ci loxoom ak fonkam yoonu murid moom yaakaar doon ko coñu dara ndax xam naa fi mu ne te ak xam rek am solo ndax sëñ bi di daa wax ne nit da nga koy jàng ba mokkal ko ni lu ci dolli ko nga xam ko lu ci wàññi lu ci wàññi ko nga xam ko waaye sag fonk Sëñ Tuubaa sag fonk yoon wóor moom uma cig sakka man dama leer te du ma jëlee ci waaye lu ma xam lu wóor lu xam fiir laa ko teg kon ñu ngi lay ñaanal ndam bu ci nit ma sa am rek nga am ci lu këpp duñ la ci soññu ndax xam nañ fi nga ne ci yoon wi ak ni nga bëgg a yëkkatiwu Tuubaa ni nga bëgg ndamul suñ bi ni nga bëgg ndamul yoon wi kon loolu mu amul dara ñu ci fàttaliwaat loolu si incha allah nu daamee rek dana ko weesu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wolof euh, xanaa di wax ne. di sant di gërëm d'abord suñu maam la xalif général des Mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke ci dalal bi ñu dalal tey fii ci biir dëkk bu sedd tedd bii di Touba yàpp ñu ñaanal ñu ngir lii ñu ñu yenn muy liggéey bi ñu war a def ci biir RTS yàlla jàppale ñu ba ñu matale ko nu ko ci ci sant di ko gërëm taataan tamit ay xelam ak xalaatam ti nan lañ war a mën a doxalee ci biir Touba fii ndaxte Touba am na lu fiy xew ñu tuddee ko màggal léegi romb na frontière u Sénégal dañ fiy jógee ñu baree baree bari nitu diina ñiir ñëw lu ñu tu xam ndax xaadima rasul moo ko liggéey moo ko liggéey wane ko ci pas-pasam ci wàllu diine bëgg ñépp tey ji ñu bind ay téere di ko xam kon bu ñu amee bés bu toll noonu ñun senegal suñu sag la sag googu nag dañoo war a fexe ba ñun ñuy télévision buñ koy couvrir ñu ci taxawaay bu mucc ayib taxawaay bu mucc ayib boobu mooy lan mooy fexe ba ñoom niñ ko bëggee ñu doxalee ko noonu ndax ku wax Touba xam ne dafa am tëralin am doxleen am kilifteef am yoon yu ñu war a mën a jaar ci biir yoon yooyu ñi ngi waxtaan ak comité d'organisation bi am na sax équipe bu RTS bu fi tàmbalee ñëw tàmbali liggéey bi waxtaana na nag ki yor kàddu yoonu murid di sëñ Bass Abdou Khadre koy gërëm di ko sant di sant comité d'organisation bi la ca des nag mooy ñoom Pape Madek ñoom Abibou Mbaye ak ñoom François Xavier ñii yor rajo bi télé beeg ñu ñëpp ñu toog ñun suñu biir tàmbali nañ ko daanaka moo tax équipe jiitu fi ñu toog suñu biir ne ren ji lan lañ war a mën a def loo xam ne ci pas-pas ci yéene def loo xam ne ñi yàlla def ne mënuñoo ñëw Touba parce que soo gisee ne diaspora bi màggal sax dañuy bàyyi seen lépp songu si Touba ngëm-ngëm mënu ko weesu. mais yàlla dafay def na ñoo xam ne am nañ gàllankoor ci waxtu yooyu jotee sunu wareef moo di fexe ba sénégal yi li ñuy dund fii ci biir màggal gi ñoom ñu mën koo dund ci télévision bi loolu nag pas-pas la ñu xar ci sunu tànk tubéy laxasaayu ni ko bay faal yi di defee liggéey liggéey bu mucc ayib ba kilifa yi nga xam ne ñoo ñu teg ci bopp RTS te umpalewun mbir ne réew mi dañ ko mooñaale ak tarixa yi mooñaale ko ak diine ñu jox leen cër bi nga xam ne ñoom moom lañu yelloo ba mu mat sëkk ñu jox leen ko kon nag loolu ñun suñu jógee fii dinañ toog waxtaanaat suñu biir xam lañuy ñuy dolli ba lu RTS doon def benn ñu yóbbu ko fukk wala ñaar fukk wala sax téeméer ba ñëpp am ci mbégte incha allah loolu moo fas yéene doon suñu taxawaay.